bisimilah dal leen jàmm ci rajo Futur Media 11h ci guddi jot na xibaar yi ci gàttal ngeen ànd ceeg Papa Balla Gueye Malang Sonko moom moo nekk ci technique bi. ñu dooree ko wax ci mbirum coronavirus bi kii di Aliou Sall maire bu Guédiawaye nag moom la ñu daal di testé mu am Covid 19 bi jamono ji nag ñu ngi xam ne mu nga foofee ca hôpital dalal jàmm ba nekk ca Guédiawaye mu yàpp xibaar boo xamante ne nag suñu naataango bi nekk foofu di Salif saw dëggal na ko gannaaw ba mu ko jotee euh, téléphone. lii nag nekk ci mbirum euh, nga xamante ne mooy seddaleek euh, dund gi jamono ji nag jëwriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum suqaleeku ci gox-goxaan yeeg yu ni mel muy xam le ne nag daanaka téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak euh, juróom-ñeent yi rek lañu daal di defagum Mansour Faye nag di xam ne ni nangu ne ne am na yéex-yéex ci li nga xam ne loolu la ñu doon xaar ngir daal di mën a àgg foofu lépp daal di jeex ci séddale gi jamono ji nag li mu mbëbët wala sax li mu jàpp mooy fileeg xëy na weerug juin bi ci ndorteel lépp la nga xam ne moom la ñu digle woon nag askan wi daanu ko daal di matal moom nag doon na daal di dajeek ñi nga xamante ne ñooy fond comité euh, bi nga xamante ne mooy fond Covid 19 ñu daal di koy déglu. à la date d'aujourd'hui le 25 mai. nous sommes ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mai man nañu téeméer boo jël ci lu jëm ci wàllu ko ndimbal gi 79 pour cent yi di maanaam juróom-ñaar fukk ba ak juróom-ñeent daal nañ leen di yóbbu ci bërëb yi nga xam ni foofa la war a dem te loola la ci ëpp rek ci diwaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi ci fukk ak ñeent ti région yëpp mën nañ ñi ñoom ñëpp jot nañ lu jëm ci wàllu ko ceeb bi juróom-ñaar ci ay région ñoom jot nañu lépp li nga xam ni moom mooy ndimbal ceeb ak yeneen ya nga xam ni moom moo ca aju bu fekkee ci wàllug ndakaarul nag nga xam ni li ci ëpp fi la war a dugg ndax boo jëlee mbir mi ñu xaaj ko ñeent